boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo jërë ngeen jëf euh, ñu ngi ci liggéey bi euh, ñu euh, moom mi nga xam ni ci commission culturelle Madame Fassène Touba Tivaouane ci la bokk doon saytu wàllu xës xësida yi nga xam ne noonu durus euh, waaye tam ci wetam ñu dend ak Serigne Khadim moom mi nga xam ni daa bokk ci kuréel mën a posé ni waaye tam bokk ci kuréel gu mag googu ñuy woowee alxuraan ca kanam kon dañuy njëkk a seq ak waxtaan ak Serigne Mor Fall xasida euh, ginnaaw loolu incha allahu rabi ñu dem ci euh, Serigne Khadim kon Serigne Mor Fall ginnaaw bi la nuyoo ziar la dañ la jox kàddu rek. Euh, nga wax ñu maanaam yëg-yëg bi nga am ci bis bi waaye tam ak yillee bis bi. waaleykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare baax di siyaare mboolem ñu fi teew ñëpp di ñaan suñu borom defal ko tey si waaw yëg yëg-yëg daanaka mbir yëpp ñoo yëg-yëg waaye kenn ku ne ak sa yëg-yëg. ci loo xam ni si ko yëg ci benn at di ñaan daal suñu borom defal ñu jàmm ak xéewal barke Sëñ Tuubaa ndax maanaam liggéey la boo xamante ne bii ci xasida yi liggéey la bu màgg a màgg boo xam ne fii fi ko taalibe indi sori na lool ndax dañuy sax lem ren moom xasida yi jëruñu jëruñu génne ay lim ndax li taalibe jàng bari te mën ñoo xam nu mu jël alxuraan ji saytu lim bi du mu toll ñu koy wane waaye xasida yi moom kenn ne loo jàng rek nga def ko addee Seexul Xadiim ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér mboolem ak mboolem jullit ñi ak mboolem taalibe yàlla defal ñu jàmm defal ñu si ba liggéey bi nga xam ne moom lañu sémb ci kër Sëriñ Tuubaa gi liggéey bi mat ba bay ñu sémbaat yeneen liggéey yoo xamante ni suñu kanam ñaanal ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp bi di sëñ Ablaye Dia di jëm si Maas Dieng yàlla suñu borom dafa leen jàmm dafa leen sutura yàgg leen tag dëgëral seen taxawaay bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu barki borom Tuubaa jërëjëf sëñ Modou euh, sëñ Xaadim euh, yow itam ñëw nga ci bis bi waaye itam mën nañoo wax ni bis moom euh, wàccaay yeeg yëpp yaa ci woon rawatina nag kër sëñ gis nañ ni ko bàyyee xel tey bis alxuraan la ak waaye nag kër sëñ am na daara te daara jooju nag mën nañoo wax ni yow ci boppam Serigne Daara bu mënti nekk man noonu depuis 2014 ba léegi yaa ko fën euh, nga bëgg rek nga sànn ay kàddu par ak bis bi waaye itam daaray alxuraan ji nga xam ni dafa nekk fii ci kër Serigne Touba gi nekk ci waawan yow itam nga bokk ci ñi nga xam ni ñoo euh, ngeen jëf ñoo ngi sant yàlla bu nga xam ne yéen a yore liggéeyub kër gi. di taxaw liggéeyub Serigne Touba bi bu mel ne suñu teewaay fii dañ fee teewal alxuraanul karim ca kanam noo ngi nuyu kilifa alxuraan ca kanam Serigne maam Cheikh Anta mu Cheikh Mamadou Murtada ak mboolem waa alxuraan ca kanam bu tuddee soxna Faati Mbàkke ak soxna maam Awa Mbàkke ak Serigne maam Mor Sam mooy dugg si noonu bokk ci alxuraan ca kanam mel ne ni yóbbaale nañ. mboolem waa alxuraanu karim te kanam mu mel ne alxuraan te kanam li ko tax a jóg mooy liggéeyal sëriñ Touba ci alxuraanu karim ba fépp foo xam ne day bàkkub Serigne Touba lu fexe ba alxuraan di fa dund te kër gi day kërug Serigne Touba Serigne Touba li ko gënoon a ñor mooy alxuraan rafiixi kitaabullaahi jaawatullaahi bi kitaabi ilaa du xoolee jannatuhu kitaabu ko diini waxu xile wa mooni si xanaa ni bil haadi wa nafsi bi saka moo tax alxuraan ca kanam jël sëriñu daara teg ko fii ci kër gi mu fi jàngale alxuraan muy sëriñ Modou Fall alxuraan euh, féete ak soxna maam Awa Mbacke ñu ànd liggéey bi euh, alxuraan ca kanam nga xam ni euh, seen taxawaay ci liggéey liggéeyu kër gi. liñ bëgg mooy kër gi jëm kanam daara ji jëm kanam lépp loo xam ni ñu fiy jàng di fi mën a gindikoo di fi xame seen diine xam nu ñuy jaamoo yàlla ba néegu bu yàlla bi bu taxawee ñu xam seeni farata xam ponk diine yi xam niñ fiy jaamoo sunu borom tabaaraka wa taala ndax wajaxal bu yooti kullaha masajida sëñ Tuubaa këram yëpp ay barabi jaamukaay yàlla rek la moo tax xam gi mu soññe sëñ Tuubaa soññe ci xam-xam yaa ayyuha sibiyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil huda mustaxilu fastaxilu bi yaa ma sar subaani in xifta xajal fa xaddima ma man xalaa xajal nga xam ne Serigne Touba moom dafa digle jàng ba mën a dañ ak réer ba xam na ngay jaamoo sunu borom moo tax daara ji ñu taxaw ci bëgg nag fu daaree àgg nag daara ji nga xam dañ ko fee taxawal ci kër Serigne tubaa gi di saytu liggéey bi fu daaree àgg rek ci lislaam ak ci yoonu murit daara ji àgg fa noo ngi sant ñoo ngi ñaanal Serigne bi Karim njaay mi nga xam ne moo jiite kër gi ak mboolem yéen ñi mu ko àndal ñëpp Serigne Youssou Diop Euh, sëñ euh, kii Ndiaye ñoom sëñ Ablaye Ndiaye ñoom ak mbooleem commission yéen commission bi bi taxaw kër gi yëpp sëñ Mourou Fall xasida ñoom ñi ak mbooleem waa daayira man la bu foncé bi yëpp noo ngi leen di ñaanal di sant bu baax a baax ci taxawaay yi yàlla na Serigne tubaa gërëm liggéey bi nangu ko ci barkib Serigne Touba Xaadimu Rasul ginnaaw loolu di ko waxee ne bisub alxuraan la waaye sëñ Sidi Mokhtar dañu waxoon ne ñu koy yaatal euh, ba tax na saa suñ ko ci ànd ak waa kër Seydi Hadji Malick ci fàttali rek première édition bi Serigne Maodo Touré moo nu joxoon fukki kaamil ak ñaar te ren jii nag mu nekk douzième édition bi kon mel na ni jàng nañ ko fukki at ak ñaar ginnaaw nag lool mu làq ñu def ci doomam mu joxaat nu fukki kaamil ak ñaar te yaakaar naa fukk ñaar moo dëppoog baatu laa ilaha illallah daara Seydi Hadji Malick yooyu nag bi ñu ñëwee ñoom rek jàng nañ fi juróom benn fukki kaamil ak ñaar loolu nag nga bëgg rek nga ñëw ci euh, coïncidence am ci maanaam bis ak euh, waa kër waaw jërëjëf euh, ndax dafa mel ni sëñ Sidi Muxtaar puso la woon bu doon ñëw bi mu toogee dafa mel ni fi mu gisee mooy Touba doon dundal te mooy lislaam lislaam nag bala nga ko mën a dundal da ngay boole jullit ñi ndax waxtasimoo bi hablillahi jamiihan wala tafarraqu innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum Serigne Touba wax ni kullu wirdin yuridil murida li hadratillahi wa lam yahida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min alaqtabi iskulhum xataan ala sawabi fa kullum yadduuna al muridina ila taxat rabbil xarsi wépp wérdu wu jëm ca yàlla moo xaadir wala wala tijaan sax yudul yooyu wala ci doy rek jàppal ndax ñoom ñëpp dañuy woote di jëme ca yàlla ñoom ñëpp nit nee na ci ak njub lañ nekk te it ku ci nekk nee na bu ci xeeb kenn nee bu ci xeeb kenn bu ci bañ kenn kon bu fekkee ni dañuy ànd ak dañoo nekk fii Tiwaawan maam Alxaaji Malick si féete woon fi yàlla ak yonent bi ak lislaam ba yàlla may ko fi lii mu ko fi may Sëriñ Tuuba waa këram ñëw fi taxawal fi kër gi kon mel na ni kat bëggug maam El Hadj Malick bëggug Sëriñ Tuuba moo daje rek ndax kenn ku nekk lii rek nga bëggoon bëgg lislaam taxaw te lii kat taxaw taxawug lislaam la taxawug diinay lislaam la kon mu mel ni. loolu dafa doon rafet rafet fukki kaamil ak ñaar yi nga xam sëñ Modou Touré joxe na ko fi ak juróom-benn fukki kaamil ak ñaar yi nga xam ne waa kër Mame Alhaji Malick jàng nañ ko nga xam ne boo ca benn rek muy 63 di dundug Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa doon loo xam ne day tegtale ni Serigne Touba lam doon dundal démb ba taxaloon mu taxoon mu yabal seex sëñ mu nekkal ko fii Tiwaawan ànd ak waa nekk ñu nekk ca lu waa kër sëñ Touba nekk waa kër Mame Alhaji Malick nekk ca daa mel ni mooy dox ba tey rek moom la taalibe yi di ba tey loola nag yal na yal na yal na ko yàlla saxal te yàggal ko kii fi nekk di sëñ mun Muntaxa yal na ko fi suñu borom tabaaraka wa taala bàyyi ba fépp foo xam ne xalifam Serigne Touba dafay àgg ci at ak cib liggéey mu àgg fa kawe ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul Tiwaawan mooy Touba Touba mooy Tiwaawan Serigne Touba mooy maam El Hadj Malick maam El Hadj Malick mooy Serigne Touba ñoom lépp seen lépp benn la ndax mam ma Serigne Touba maam Maharam Mbacke mi ko meññ maam Maharam moo jur maam Balla Xaysa maam Balla Xaysa moo jur maam Warxanta Sali moo jur Serigne Touba maam Maharam moo jur maam Thierno Farimata Mbacke maam Thierno Farimata Mbacke moo jur maam Mati Joosi Mbacke maam Mati Joosi Mbacke moo jur maam Ousmane Si maam Ousmane Si moo jur maam El Hadj Malick kon ñoo bokk lépp ci wàllu deret wëlbatiku yi nag nu bokkaat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokkaat alquran bokkaat lislaam bokkaat dëkk bi bokkaat réew mi bokk lépp kenn ku ci nekk lay sa yitte mooy diiney lislaam jub jëm-jëm ca kaw ba julli ñëpp mën a jaamu yàlla jub teg seenu tànk siraatul mustaqim kon mel na ni wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ba ko sëñ Sidi Muxtaar yëkkatee sëñ Muntaxa ñëw yàlla dogal lii amee lii sottee ci ci ayug sëñ Muntaxa kon sëñ taxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko waaye boolem lu ñu fi liggéey ñu jàng ko fi ci alxuraan ba ñu daje ko fi rek yàlla gërëm lépp ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo